malheureusement donc ces députés là ne vont jamais être des députés du peuple on a vu un Oumar Dembourou Sow qui est allé à l'Assemblée nationale mais on a vu ce qu'il a ce qu'il a dit il a tenu des propos yi nga xamante ni déplacés parce que kooku xamul ne député la xamul ne moom l'exécutif doit rendre compte à l'Assemblée nationale. Cher, on va prendre la euh, monsieur Mbodj ñu ngi lay nuyu. alors euh, ñu ngi lay euh, gërëm déjà ci disponibilité bi euh, fi Sénégal tollu lañu bëgg a xam lan moo ci taxawaayu F24. Eh, réew mi fu mu toll d'abord mooy que am nañu président boo xam ne daf ñu bëgg a teg dictature teg ko ci jalgati droit teg ko ci manipulation. Euh, <laughs> teg naqar askan wi yëpp bu fekkee askan wi yëpp am naqar nag ñu teg leen loolu yoon askan wi yëpp war a jóg S24 donc foofu rôle am rek mooy naka lay fexee ba créer synergie ñi nga xam ne ñoo nekk ci organisation yi nga xam ne mënuñ leen gis waxtaan ak ñoom dajale leen comme ni mu leen ni mu dajale woon nit ñëpp en deux mille vingt-trois avril ñu dajale leen. jéem a xool action yi nga xam ne moom la def bu ñu dajalee suñu doole bu dajalee suñu xalaat gëm nañ ne euh, naqar wi nga xam ne moo ne ci askan wi dañ xool naka lañ koy euh, fexee ba mu fës ñu wane ko ne ñun lii neexuñu ci as ci dëkk bi euh, ba li nga xam ne neexuñu nag mu dakk parce que li ñu neexul ñaar la benn mooy arte nañ processus électoral bi loolu du dëgg du yoon. donc euh, defe naa ne loolu candidat yi ak parti politique yi dañ ci jóg def seeni recours mais euh, recours bi lu doy il faut que population yi jàpp ci wane ne ñoom kat lii ñu teg lii ñu teg askan wi teg ko ci euh, candidat yi ñoom d'accord ñu ci donc pression boobu il faut ñu mu nekk ci mbedd mi il faut mu nekk ci kër yi il faut mu nekk ci dëkk bi beneen bi mooy naqar mooy prolonger nañ mandat bi donc daanaka may nañ troisième mandat euh, Macky Sall parce que nee nañ benn at la waaye puisque ñoom ne woon nañ clause d'intangibilité la clause d'éternité ñu xëy dindi ko bu leen neexee gannaaw suba itam jël euh, même même euh, kii bi parlement bi ñu def ko cinq ans wala sept ans parce que yow seen horizon horizon la. Mm-hmm. donc loolu boo ko nit ñi xamee noonu xam ne euh, naqar bi fës na bokk nañ ko ñun ñëpp ñu fexe nag ba ñëpp nu ñu taxawee euh, parce que defe naa ne bu ñu motee cinq cent mille def un million wala deux millions de personnes yaakaar nañ ne bu boobaa duñu xëj ci kaw ñi nga xam ne minorité lañu te yaakaar ñu lu doole donc ñu jaay leen wan leen doole bi bu fekkee nag ñoom d'accord ñu ci loolu bu fekkee ne confrontation moom vraiment bëgguñu ko. waaye nag euh, bu fekkee ne ñoom confrontation dong dong lañ ñu moo leen fi mën jëlee xëy na dañu àgg foofu. mais gis nga ñu euh, samedi bi yëf yi amee yow euh, personnellement intervenir nga fi nga wax ne euh, da ngay woo sénégalais yëpp pour que ñu taxaw faire face à ça démb ñu yaakaaroon ne xëy na loi bi bu jàllee dina am quand même benn manifestation de désaccord bu ñuy gis ci askan bi est-ce que jàppoo ne askan boobu intimidation bi am 2021 am 2023 ça dafa réussir tellement que tey ñimetuñu wàcc ci mbedd mi parce que on tire à balles réelles sur des gens il y a beaucoup de yoo xam ne ba léegi enquête leeralul lan moo leen faat ñi ñu ci kaso ñoo ngi te génn am na ci ñoo xam ne amee nañ ci ay euh, euh, gaañu gaañu yooyu tax dootuñu jagati ci àdduna est-ce que du loolu moo bloqué tey sa peuple la et que tey yéen su ngeen doon fexe génnee leen sur quel levier vous allez jouer vous allez vous appuyer pour loolu mën a nekk. waaw loolu euh, intimidation boobu am na am na ci effet waaye quand même nit ñi jóg nañu quelque part gis nga lacrymogène yi dal na donc am na ñu jóg xëy na nag organisation bi nga war moo des parce que du xeex ak ay bal rek parce que am na muy demee ñoom du ñu tiire bal parce que ni ñu organiser woo euh, dina rëy rëy boo xam ne ñoom du ñu mën a tiire bal donc loolu ci la ñuy liggéey actuellement ñu ngi defe naa ne F24 mu ngi liggéey mais gis nañu initiative yu bare bëri bëri yoo xam ne ñëpp ñu ngi liggéey ci loolu parce que naqar bi toll na foo xam ne ñëpp dañu bëgg def dara donc bu fekkee naqar bi toll dafa ñëpp bëgg a def dara nag bu ñu dajee boole xel yi. dañu am solution yi nga xam ne moom moo adapté à la situation actuelle. parce que nit ñi ragaluñu mais xëy na bëgguñu aussi nit ñu bari dee donc loolu benn énigme la boo xam ne équation boo xam ne la il faut ñu résoudre ko te gëm naa ne dañ ko résoudre ci fan yi di ñëw. su ma la déggee kon yow gëmoo ne élection dina am le 15 décembre man xalaat boobu laa fi jëbal sànq et c'est vraiment c'est vraiment man ce que je ce pense. daju ko cest à tey jii. ñu reprendre élection yi bu fekkee mën na ne le plus rapidement possible loolu mooy première éventualité bi nga xam ne moom la ñu xeex bu fekkee antuwul parce que problème am na parce que parce que ñu ne nag léegi le 2 3 avril moom Macky Sall n'est plus président de la République kooku moom ça doit être très clair très précis Macky Sall ne peut pas prolonger son mandat c'est impossible dans ce pays-là et ça moom lu mu jaral jaral nañu ko. donc loolu moom duñu ko sax werante hmm. maintenant après nu muy demee hmm. mais quinze élection quinze décembre moom non loolu moom loolu bokk bokkul suñu calcul jàpp ngeen ne du am léegi bu ñu yeggee le 3 avril lan ngeen nar a def mais fii ak le 3 avril dëkk bi dina jaxasoo parce que dañu ñu rek di seetaan fii ak le 3 avril fexe ba nga xam ne ñoom dañu xam ne loolu ñu bëgg tappale ci nekk teguñ ko loolu ci tappale loolu du am ci réew mi donc loolu moom ci la ñu taxaw wax dëgg yàlla bon lu muy lu muy demee légalité bi lan la santaane bu fekkee président bi assemblée euh, kii am jeex na mandaam jeex na moom vite mu am. Euh, vacance du pouvoir. Euh, vacance lan lan lan la loi bi teg ñu xool ko bu baax bu fekkee ne vac vide juridique moo fa am ñu xool lan lañ fay teg mais moom ñu dem président Macky Sall le 4 avril bu toog fii loolu xel daju ko. jërëjëf Mamadou Mbodj mais est-ce que yaakaar ngeen am ci soutien wu toute la classe politique parce que gis nañu quand même yenn euh, euh, nit yu tàmbalee wax di wane ne ñoom li président def ànd nañ ci euh, dégg nañu d'ancien premier ministre di ne su fekkee dañuy reprendre élection yi pour que ñu jooyanti lép lu amoon comme jafe-jafe ci processus électoral bi ça peut être une bonne chose ñooñu tey bu ñu dara bett bu fekkente ni dem nañu ànd ak moom est-ce que yaakaaroo leen aussi peut-être une partie de la classe politique lâcher F24 lâcher le peuple autrement dit Euh, non non non ñi nekk F24 moom gëw ma ne dañ dem ñi nekkul F24 nag moom xamaluma leen dara mais ñi nekk F24. Hmm. gëm gëw ma ne dinañ dem ci loolu. Euh, li ma gëm mooy naqar bi dal Sénégalais yi moom moo nekk ci xolu politiciens yeeg société civile ak ñëpp te naqar boobu toll na foo xam ne Macky Sall moom des euh, fi naan day élection day organiser ay élection après le 4 avril loolu moom xel daju ko donc ñun lim en tout cas ñi ñu waxtaanagul yëpp. ñoom loolu la ñu jàpp 3 avril moom Macky Sall jeexal na ci présidence république maintenant bu ñu organiser élection après moom bokk ci euh, te du am lu ci dogal loo xam ne na tax mu de mu mu yàq élection yi. jërëjëf Mamadou Mbodj ñu ngi lay gërëm. maa ngi leen di gërëm di producteur Sénégal jàmm amiin jërëjëf ñun ñëpp euh, jàmm la ñuy ñaan ci Sénégal Cheikh ñoo ko déggandoo donc c'était le F24 le coordonnateur euh, précisément Mamadou Mbodj mu wax ci euh, li nga xam ne moom la ñu nar à partir du 3 avril ils ne reconnaîtront plus le président Macky Sall comme président du Sénégal mu mel ni ni mu ko waxee réew maa ngi jëm ci jaxasoo parce que peut-être attitude sénégalais yi la majorité démb jaaxal na ñu bëri mais analyser aussi si benn angle danga koy comprendre attitude yenn homme politique yi aussi franchement euh, euh, ça ça étonne ça surprend mmh. mais euh, ba tey on prend acte et je pense que man le peuple sénégalais aura le dernier mot loolu j'en suis convaincu parce que Cheikh on a vu Yaya Jammeh en Gambie on a vu d'autres tyrans ailleurs mais comment ils ont fini comment ils ont terminé leur euh, le règne comment ils ont terminé franchement seen euh, dictature yi nekkoon ak seen askan je pense que yooyu quand même ça doit servir de leçon xam naa ne foofu la nga waaw xam nga Fatou dañu am benn président bi nga xamante ni président Macky Sall ndeysaan moo tax gis nga nit looy wax rek na fekk nga gëm ko président Macky bi mu toogee au niveau de la Gambie il y a une élection présidentielle mm-hmm. Adama Barrow est sorti vainqueur ba Yaya Jammeh jot ko félicité quelques jours après il est revenu sur sa décision mm-hmm. ou quelques heures après mais qui a commandité mm-hmm. n'est-ce pas euh, euh, l'envoi d'une force militaire mm-hmm. n'est-ce pas sous euh, la bannière de la CEDEAO pour ñu dem déloger ki nga xamante ni mooy euh, le président ga l'ex l'ancien ou l'ex-président gambien Yaya Jammeh kan moo def loolu c'est le président Macky Sall c'est le président Macky Sall qui a demandé n'est-ce pas à ce qu'il y des élections libres et transparentes au niveau n'est-ce pas du Mali bi nga xamante ni quand ils étaient euh, dans une situation où le Mali était en train d'être divisé son territoire euh, euh, quand même menacé des groupuscules ou bien des groupes terroristes n'est-ce pas di établir foofu noonu di di di di mener le kaw ñu gis ne président Macky bokk na n'est-ce pas moom ak ñooñam waa CEDEAO ñu doon ne dañuy sanctionner nest pas ki nga xamante mooy Assimi Goïta ginnaaw bi nga xamante ni ni wu jox nañ ko benn calendrier ni pour mu organiser élection mm-hmm. donc ñu gis ne ni euh, quand même foofu euh, Mali dëkk la woon boo xamante ni euh, ba léegi sax dëkk la boo xamante ni dafa am ay jafe-jafe mais quand bien même cela am na président Macky Sall laaj na nest pas en tout cas bokk na si ñi nga xamante ni ñoo taxawoon ne nañu def élection mm-hmm. la junte jël le pouvoir n'est-ce pas mhm. euh, Mamadi Doumbouya ak ak i ñooñam mais gis nañu CEDEAO à travers aussi n'est-ce pas euh, euh, le concours de du président Macky Sall ils ont demandé à ce qu'il y ait des élections ba pare ñu ne li ñu la leen ne leen n'est-ce pas la durée de la transition warul yàgg mhm. ñooñu ne leen mënuñu organiser quand lan la ñu menacé ils ont menacé de de mener des sanctions contre ces pays-là on a vu <laughs> au Niger ce qui s'est passé là-bas léegi nag loolu yëpp président Macky Sall moo ko def moom moo ne lu mu metti metti metti ak lu mu jafe jafe jafe le calendrier républicain ne doit pas être n'est-ce euh, comment dirais-je euh, ne doit euh, euh, nan lañ koy waxee ne doit pas républicain. voilà doit être moom moo ko wax léegi nag. xam nga dëkk yooyu yëpp ay dëkk la dëkk yu nekk en situation de crise mm-hmm. ñun mm -hmm. dans un pays où il y crise la seule crise qui existe au niveau de l'APR uh-huh. APR moo am crise interne depuis que le président euh, Macky Sall a choisi son dauphin ñoom ñoo am crise uh-huh. et bon ça c'est leur euh, c'est leur cuisine interne uh-huh. ça ne regarde pas les Sénégalais s'ils sont pas contents ils n'ont qu'à aller convoquer je sais pas euh, euh, une réunion au niveau du siège là-bas ils je, prends cet appel de Mamadou Mbodj peut-être mm. qu'il a qu'il va ajouter autre chose monsieur Mbodj allô monsieur Mbodj ah d'accord peut-être c'est un appel dama yaakaaroon dafa am ci bëgg a donc euh, ñu gis na ni euh, euh, la seule crise qui existe c'est au niveau de l'APR. Mm-hmm. l'autre crise qui existe. Mm-hmm. mais bon c'est au niveau de du Parti démocratique sénégalais. qui n'a pas su n'est-ce pas avoir encore une fois un pré un candidat